waaye ñu ngi toog ak euh, le grand lambologue waaw fekk ko fii nag muy enregistré mun nañu xam lu tax ñu tuddee la lambologue. waaw lambologue bi lambologue bi mbedd bee ma ko tuddee. Hmm. waaw. Ah, avant may ñëw si sidi laa tudd lamb. waaw mu naan def su ma ba si gars ñu combat jub ñu werante. Hmm. ku ne def. Mm-hmm. léegi su ma gañee su ma fa rombee gars yi ne eh, mm-hmm. yaay lamb waaw. Mm-hmm. waaw ba lamb yow noo tudd. man Alaaji sant nan. sant kebe ah El Hadj waaw ñu lay woowee lamb ñi di woowee lëz. waaw ñi ma wax maam As. ñi ma xam dëgg ci lu ma sama famille boo nee maam As rek si téléphone damay xam ne kii ku ma xam la. Ah, waaw boo nee lëz damay xam ne booy la. Ah, yow fan nga juddoo. man maa ngi juddoo Dakar Géejawaay. Géejawaay Géejawaay si fan. Géejawaay marché bees. marché bees. marché juddoo yaroo daara ja. waaw yow xale nu mu demee woon tamit. parce que damaa ah, ah, a sama papa damaa teel a si si Mansour. defar ma. après laa fa jóge dem dem dem ciisee benn dëkk bu naan ciisee. tase naa fa ay seex ndigal. waaw ñu dolli ma. defaat si man ah, leneen. mais man sama dëng bariwul. bariwul waaw nga tox. waaw non damay tox. damay tox waaw dëgg Eh, da ngay taal moom. Hmm, da ngay taal lu bari. waaw di ñaan yàlla bàyyi cigarette bi rek. Ah, teg ko parce que taalibu hmm. seex du taal. taalibu seex du taal waaw mais xam nga lës moom daa dee moom. di dox hmm. man dëgg may rey. waaw. donc yow mës nga bëre. ñu ngi nekk xale. non football laa doon def mais. man nag ma doon football may bëre nag de. ah alhamdulilah ku yàgg si gerte gi naan si meew mi. mu ah baax na. mais léegi. xam nga rek jamono yi ñu nekkoon booy. ñu football doxut bëri doxut. boo seetaan ne bëri ji boo ñëwee dañ lay tóor c'est soixante seize. quarante sept quarante huit ans. jamono yi may nekk booy war a bëri. boo seetaan jee bëri boo ñëwee dañ lay tóor. dëgg la boobu rajo yi bariwul. benn télé moo fi amoon sport de jeune. yaa ngi koy fàttali ko Père Moussa Fa ak ak Manga. ñoo fi nekkoon ak Mbaye. dëgg la samedi nga koy seetaan midi. ah yow it. dëgg la mais mais mais yow. nan nga nan nan la la bio làmb duggee nan la la làmb duggee. non damaa dëkk a ay langsaane. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. muy takk di jóg. Mm-hmm. waaw ñu dem buñ bëree ñu fubal yi ñëw ñu ñëwee ñu ne waaye booy de daan nañ leen. waaye luy wax nii ñu ne booy de daan nañ leen gaan diwa leen daan mais suba dañuy seetaane ni. léegi buñ mobiliser dem mbëri dañuy daan. su mel ay ñoom jigaat. ah ay ñoom ay ñoom Balla Beye numéro un sama kanam lañ ba pate. waaw ay Langsane. mbapatu Langsane. mbapatu tubaab ci kaw mbapatu Alioune Seye. marché pënd. ay ñoom bo ay ñoom kii ñii ñoom Amacem. bëri nañ foofu taay ay Abdou Diouf Waal. waaw ñooñu ñooñu bi ñuy mbapat laa gën a xam sax mais ay ñoom mbapatu Baala Gaye nii bëri wu yàggul. yàggul waaw mais mbapatu ñoom Amacem ay ñoom Baala Bey. ñooñu kaw soor boobu. mbapatu Baboy mën nañu si nettali tuuti mbapatu Baboy. Mbapatu Baboy. Hmm. waaw Mbapatu Baboy. Baboy bu nu mu meloon bu muy nekk xale. Hmm, bi mu bi mu nekkee di bëree Mbapat. Hmm. waaw yii Baboy bi mu nekkee di bëree Mbapat la gën a tàng bëri bi. moo taxoon dañ naan Baboy bu teeyee rek day am dara. mais Baboy bu daan bëree yow Mbapat du la teg mbër. àll bu pir yanu na la wala nga yanu. moom nekku fi woon di nekk mbëru kaleeg yooyu. déedéet Baboy moo fi indi Tyson. ma xamal la loolu. naka keroog bi ma gisee Tyson di bëri damaa dem wooyu jaww na ko jaww mu ne ah mun ko waaye ma gisoon naa la bis bu nekkee mbër. Mm-hmm. ma bi demee Pikine lañ ko fekk Mbapato Fallaye Balde mu fay bëri moom Tyson. moom Tyson waaw. kon moo ñëw di riposte ne mm-hmm. bu Mbapat bi gën a riis. Mm-hmm. loolu yàgg na de. ma si laa ne Tyson bi ma koy xam day garder équipe bu dëkk Pikine. di football si nekk si seen biir njool Mm-hmm. kon ko waay sa waay kii bu ñu ko indee ci laax ci dañu am dara de. Mm-hmm. kan gi bëri na doole la mu sol benn communoo mm-hmm. yor waay yor bisabtu yu baax jiital góol bi fekk boobu góor bi la booy ne dañ koy sànni xeer parce que daal biyee duwal gañerate mat ci nii góol bi jàpp ko xam nga booy song ko dagan ko jiirul ba ka laala mais ñi si topp ñëpp ñu ngi si topp mais kenn nu ma wala laal ndax jamono yooyu yow ku nekkoon sa mbër avant ngay dugg si làmb kan ki nekkoon sa mbër Langsane la woon. Langsane nekkoon sa mbër nekkoon sa mbër après la génération yi ñëw. Tyson mm. ñëw mu dem mm. si Tyson. Mm-hmm. waaw di ko supporter di ko supporter ba si yàgg gaan ay ñoom sama booy juddu. Mm-hmm. Tyson bàyyi bëri. Mm-hmm. temps bi jàll xanaa xamoo supporter yu bëri yu dem si Balla Gaye supporter yu Tyson lañ woon. mais dañoo dem ba si biir Tyson kulus làmb. amatuñ fuñ jëm. Balla Gaye fi. ñëpp ñibbisi. Tyson mënoon na bëri. laaj Tyson daanaan la bala naan Tyson mënoon na bëre laajoo Tapha Gueye Tapha Gueye ba mu dawee roofu Tyson ñaata yoon la lekk tànk bi. Hmm. lekk na ko une heure de temps bi ko Tyson bëggee mu bàyyi ko fële la ko fëgg mu bàyyi. bilaahi bi mu ko Tyson moo fi njëkk a génn mbootu cala. Hmm. paay daaw ñu mboot mboot yi assuré nii de Tapha Gueye fi daan mboot te mbootam du kii mais Tyson moo fi njëkk a korosé loxo ne la nañ naani meew. Hmm. waaw si la Balla ngay ñëwee confirmé mboot yi mais Tyson moo fi njëkk indi ay mboot. Hmm. Tyson bëre kese lay def. kon daanaan la daal. laay Tyson si mystique mënoo koo daal. Hmm. Tyson. Hmm. ni respecté ko mën koo bëree bu ko mënee woon mystique. boo na yàlla du ko kon le 25 décembre 2002. Tyson dafa bu dee entraînement Tyson mosul sumee ko perte bu nga ne kii saa yu ñëwee du arrière fu la lay wane fayda. ku lay daan dem sa yoon. Hmm. mais jaaxle waaye combat am yëpp si ay bopp bi lay mujjee. waaw contre Tapha Yékini. contre Bombardier waxoon naa la fii suñ benn émission ne mbër mbëru mbëru ñaar ñaara da nga koy ñamal ko. Hmm. mbër mooy gis muy xeex bis bu ñamee xeex ngay doog a xam ba xam xeexkat la wala du xeex hmm. mais bul gis mbër mi di dóor rek nga ne xeexkat kon Tyson daa xeex du xeexkat. non Tyson ña ma mu am lépp si loxoy la ko amee. mais est-ce que daana encaissé. encaissé kat ak xeexkat bokkul. Mm-hmm. péré bu kuy dóore ak bu ñuy dóor bokkul xam nga. Mm-hmm. te Tyson da daan dóor nga dootoo ko taal. Mm-hmm. mais xoolal bi ko tubaabu joor dóoree dafa bien. waaw mais bi mu réfléchir bi mu fi fekkaatee tubaabu joor bi mu ko révisé. tubaabu joor daa wàcc. waaw moo diisoon moom. kooku jël doo ko supporté. am na ñu naan Tyson ay paa lay daan mais paa yooyu kenn mënu woon daan. mu daan tubaabu joor daan Mouhamed Ali daan Mor Fadam Hmm. tey bu leen neexoon tey ñu ne Reug Reug mi ay ay paa hmm. wax mais paa yi kenn mënu leen a daan. Hmm. Tyson bi muy dugg si paa yi paa kenn mënu leen a daan maa nga ñaata yoon la yor droit de genre. bëri na bëri bëriwul. lu bëri la. waaw benn bu yow moom benn yoon dañuy jàkkaarloo de dóorantey ku ah, ah, dafa jël dara si Tyson. Balla jël na si lu bëri. parce que Balla Gaye Tyson da si làmb. Tyson ku dul moom sax. doon nañ ci Tyson xanaa xamoon Tyson tey jii. Hmm. lamb da kaa dese njukkal CNG même bu fa waroon a am place dafaa war a am place. Hmm. parce que Tyson du koy yàq. te hmm. day économiser. te bu ñëpp ni moom yàq day am. parce que du déranger. man loolu laa ko neex. Tyson mosuma gisuma ko sax lu bari. keroog ma bëree ak manga daan manga. keroog laa mujjee gis si bët ak bët comme ni maa Hmm. xoolal loolu yàgg na wala yàgg mais dafa yaru hmm. am teggit hmm. am respect xam ne muy wax ak ni kon Tyson am na place euh, CNG wala amul place CNG parce que Tyson lu bon bon expérience bi baax na kon waroon nañ kaa teg muy conseil wala mu dekk leneen mais waruñu bàyyi ku mel ni Tyson mu dem génn làmb làmb dem Baboy Balla Gaye 1 Tyson Gilles Balde mbër yooyu nekkoon Pikine yëpp kan moo si dàqoon bëri pour yow mbëri yi nekkoon bëri Pikine yëpp ak Baboy Jules Balde ak ñoom. Balla Beye 1 waaw. waaw ak Balla Beye 1. googu jamono jooju. ku tax Tyson leen mën. Tyson moo leen mën. fuuf da leen a gën a gudd gën leen a baax lay bëree. Hmm. Tyson moo fi ñëw def fi defu fi cinq ans indi roi des arènes te nga ko jëlee. Hmm. kooku ñeme nga ko jox toxa. Tyson bu du dugg. Hmm. kon ki fa indi roi des arènes ñeme nga ko àttakale mbëri. Tyson jaarul si mbappat soriwul si mbappat musul bëre spécial. Mm-hmm. chaque jour grand combat ba ni mu bàyyee. Mm-hmm. chaque jour xaalisam du yokk. Mm-hmm. kooku moo leen mën. dëgg neexul. Yékini nag Yékini nag pom ak banaana. Mm. Yékini loo ko bañ bañ xam ne koo koy champion. Mm. non 15 nga téye ko ku ñëw nga dóor ko dóoraat ko dóoraat ko Yékini dañ daan indi mbër ñëpp ragal ko mu ne jox leen ma ko. Mm, mm. daan ko si lu yomb Yékini ñi mu daan ñëpp trois fois la leen daan quatre fois te ñii ku si may sa morom benn fois di daw. Mm, kon Yékini leen mën. Yékini bu ko gars sotul woon duñ jël roi des arènes bi. te Yékini bi ñuy jël roi des arènes bi. foo teg na lañ ko sot. non maanaam bi ñuy jël roi des arènes bi ñëpp a war a wax ne Yékini dafay daanu tey. parce que Yékini daa téye làmb ji mais pas ñun ñu dem ñëpp di ko sot wax la mais déggin la laaj nee naa la samay wax borom bopp laay waxal mm-hmm. bu feebaree nopp yi koy dégg ñoo war a wér mais Sénégal nekkutuñu fi di toj wax ji di ko pièce di mm. génne wóor pièce waaw loolu amuñu temps boobu mm-hmm. mais boo déggee ma ne la Yékini moom buñ ko sutul buñ ko daan mooy ñëpp a bëggoon mu daal mm-hmm. moo tax ñu indil gaynde gu mag teg te ñëpp a ngi si ginnaaw gaynde gi waaw moo tax it keroog yoon la toog si géew mbër daanu na du fa taxawaalu hmm. balaa daanu ñu yëkkati ko parce que dañuy xam ne jël bee ñu bett mais hmm. yëkkati daanu lu yàgg jàpp ndig li si biir géew bi lu yàgg hmm. bu ko mbokk yi jël si wut kenn du ko jëli mais jaaxle bu muy daan baabooy seen deuxième affrontement bi wër ndomb bi mu daan ko loolu jaaxle loolu dangaa wër rek ma xam ne baabooy da saa oyof waaw maanaam cuuj du ñenn gëleem quoi baa bi mu takkee wër ndomba mm-hmm. bi bi bi yëkk bi bi yëkki nit sëggee mm-hmm. dënn bi si ndigg si ndigg li la toll si taat bi mm-hmm. loolu du yoon dënn bi si yoon fii la waroon a toll baa booy mën kaa am ndax mais xoolal bi mu ko takkee nii la nii la ko féete te du yoon léegi bu defee nii day lang bu defee nii day lang maanaam yëg na kaa gën ramasse baabooy fi mu dugg baax na sax. Mm-hmm. mais mu xaajoon ko génn. Mm-hmm. takk ko xaaj mm-hmm. xaaj yi ni te bañ jël lépp. moo gënoon si baabooy mais baabooy daa jël lépp. a noonu la mu parce que kii expérience moo bëri yëg ni dafa mën bëree. Tapha Gueye mën na bëri. Tapha mu faas. waaw deuxième tigre. yaa ngi mel na nga naan maam Serap Fall Baye Fall. Mm. Tapha Gueye mën na bëri wala Tapha Gueye moo fi mboot yëg. baaboo yi ñëpp ne mu àgg na wala àggul. Hmm. maam njàmbaar ñëw mu def ko mbootum deuxième pied. Hmm. mbootum deuxième pied bu ñu ko xamee si Tafa Gueye la. Hmm. ma xamal la loolu. Tafa Gueye moo fi njëkk a teg mbootum deuxième pied xëcc ñu naan mënul ne mu mu yóbbu la top 5. moom waaw chance la amul pour jël roi des parce que bi muy jël roi des arènes mbëri dañ kaa gën a gudd. mais moo leen ëpp bopp. gën ko loxo. te mu ëpp leen bopp Tafa moo moo yëkkani ñaata yoon la ko yëkkani daan ci biir géew. jour la boobu amul arbitre deux mi temps laa tudde làmb jooju yi ki ni da koy daan ba fan si di ko son hmm. moom Tapha Gueye moom lañ fi def lu kenn deful na hmm. Yékini Tapha Gueye Tyson Baboye waaw carré boobu seen génération ku si mën non kooku Yékini si mën hmm. Yékini leen mën foofu génération boobu Bombardier Yékini Baboye Tyson ñëpp Yékini leen mën Yékini jamono yooyu fii la leen bëggee revanche mu ne la wool seen bokk bi yoon bu la daanee du la daanaat bala moo bëreeg yow ta dalay daal. Mm. kooku la mën. Mm. dëgg neexul. laa ma jël nekkuma si ay gis gis. nen di wax ay nen non non àggatuma foofu. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp samay grand la ñii samay rakk ñii samay ndijaay ñii mm-hmm. samay kii. Mm-hmm. te ñun ñoo bokk Sénégal ñi may seetaan dañu leen a respecté. parce que nit ki boo déggee ñu lay wax rek ni la làmb du faral kenn muy lii may dund. parce que tey jii booy wax Yékini génération boobu nga teg leen ñoom ñëpp daan na leen kenn ku ne trois fois. booy est ce que dinañ daan seen i morom kenn ku ne trois fois booy ragal defet yi. booy koo leen jox ko combat sax buñ gisee defet duñ ko jël. naan la bokkuñu palmarès Yékini da nga daan wax mbër mu Yékini bi ñu fi indee booy bu kooku jógee tubaab bi. lu mu hmm. wax jox ma ko. Hmm. mooy mooy mooy mooy tubaab boobu nekkoon maris dama koy fàtte te Bombardier fekki ko fee bu ko daanu jiwuloon xaw ma fu ñu jëm. Hmm. Bombardier moo ko mujj fekk ji fa muy la muy def daan ko sax. mais booy tubaab boobu bi ñëwee fii rek Sénégal kenn nanguwul jël risque bi si manager bi. nouvelle génération bi nag kan moo si daaw a bëri Balla Gaye 2 Modou Lo Eumeu Sène Gris Bordeaux waxal naa si waxaat. Mhm. dama ne la nouvelle génération yi booy wax ku mën a bëree ku mën a bëree. Mhm. munoo wax ba baase fi Balla Gaye. Mhm. parce que Balla Gaye moo fi def sept ans deux mille cinq la jóg. si sept ans mu téye roi des arènes. kooku boo loo ko bañ bañ waxal ko mën bëree. mais boo fi wax ay qualité. duñ fi jeex. parce que Eumeu Sène. xoolal ba mu dalee bëri ñoom Balla bëriwul ba léegi bàyyiwuñ ko fi. kooku loo ko mën a waxal tamit. làmb ji moo jaxasoo. Hmm. pour nga wax ko bopp la moo koy dégg. Hmm. mais kenn ku si nekkoon dañuy xool li nga gañee. Hmm. ñu jox la palmarès boobu. mais bu ñu xoolee si ay ay ki nga daan ak ki nga daan làmb ji lay jaxasoo. xool Gris Bordeaux mii. sa waay Balla Gaye daan na ko. te Gris Bordeaux daan na Bombardier. te Gris Bordeaux mënul yëngal Balla. xanaa loolu metti na. te Balla Gaye Balla Gaye si jëm jëmi boppam daan na Bombardier. Hmm. te Balla Gaye daan na Balla Ba Baboy. Hmm. xoolal yooyu boo xool kon si jéelu doo dem. Hmm. da ngay xool si kaani maanaam veille yi. police sax boo fa duggee veille ngay xool. Balla Gaye ñaata veille la waaye Balla Gaye fi ne nii boo koy wax mi ngi si 3 veille 4 veille ko dese. jëlaat roi des arènes ko def yaay 4 veille mooy comme Bombardier. Bombardier 4 veille la yor fi ne nii lu ko lu mu def si làmb safewul. lu mu def si làmb démérité wul. Modou Lo ñaata veille la. Modou Lo benn veille la yor benn roi des arènes la jëlagul. te génnagul sax. parce que bu boo génnee si roi de arènes rek ñu daal la vee bi nëbbu na. kon yoratoo vee beneen kii bi nga yor maanaam boobu ñuy doog a jox élève bi. mënoo bu daanee si roi de arènes bi am vee mais bu jëlee roi de des bi génn daanu amatul roi de arènes. amul vee am na roi de arènes mais amu si vee combat boobu amoo si lu la naqari ba léegi mënul am. non combat boobu ñu def moo ko amaabal de léegi mu naqari sax. léegi combat sa waay bi bu guy gi sa waay boobu. Sa Thiès Sa Thiès. dañ koy neex. Hmm. combat boobu nañu ñaanal sa waay mi ko tëgg yàlla hmm. may ko fekkee ak tal mu fekke mu hmm. mëtloo ak tal ñu ñëw bëre ko parce que ñoo mëtloo sax mu teggee ko seen bopp moo leen gënal waaw parce que yor mbër boo ko xamul rek xamoo ko mais ñoom mbër yi toog yor seen avance yooyu ñoo la gën a bëgg affaire bi teggee ko seen bopp kon yàlla leen yàlla dooleewaat seen wér gi yaram ba ñëwaat année année yi nga année yi ban combat la tàqal si nga seetaan yi année bi année yii passé année yow bi nga commencé seetaan lamb non loolu bu ma koy lim fi laay fanaan. Mm-hmm. am nga benn bu la si gën a marqué. non am naa si combat yu ma gën a marqué mais fi ne nii. làmb mm-hmm. nekkatul ma ay wax combat diw moo ma a ñu ne combat diw laa mm, parce que boo yëpp nañu daane tey jii bu ma koy wax mun naa si seetaan ba fanaan si. Mm-hmm. mais mbir yu ne xam naa sa njàmbaar xam naa sa njom. xam naa sa tey bu ma ñu ne làmb parce que làmb àggatuma si wax Bombardier moom moo laa moom laa xam ne moo si dàq ab daal. ban intérêt dàq daan du intérêt mm. waaw mm. maanaam wane jom wane fula wane ngor mooy rëg-rëg guy gi bii mm. passé rëg-rëg guy gi wala rëg-rëg ni mu indi baax na wala baaxul dox ci koor mbëri bi ñibbi man bëri bu leer damay Sa Thiès mën na Sa Thiès xam nga rëg-rëg musul daanu Sa Thiès Sa Thiès na kaa daan Sa benn feebar la wax sax si biir wax lu ko bëri may mu may ko Sa Thiès combat bi da kaa war a assuré xanaa xamoo loolu Hmm. dafa am bis yoo xam ne teg jeexal la. Hmm. moom Sa bii teg jeexalal la si moom. Hmm. da si tëkkar bakkan bi teg ko daan kii lu bëri la koy jox. bu rëgg bu daanee kii fan la yow. laaj na la direct. direct waaw. tëggaay. kenn mënu koo daan bi ñu koy jox Sa Thiès ñëpp ne day rey Sa Thiès bu ko Sa Thiès war naa yóbbu Sa bu bëri. bëri noonu la te jii Eumeu Sène bu Sa Thiès daanoon bu ko yóbbu fenn daan na magam mu daan ko doon. mais rëg-rëg tamit ndam la bëgg rëg-rëg bu ko daanee day dem waa day sax rek hmm. pour daan sax Thiès loo fee rëg-rëg bu ko daanee Guédiawaye mooy commencé teg jeexal hmm. comme li may wax teg jeexal Tapha Tine nag ñëpp ba ko Tapha Tine la dëgër buñ bëree bëri bi du neex loolu nañ si bàyyi xel la dëgër loo ko bañ bañ bañ bañ la gan hmm. defet la am nañ ko jox Tapha Tine jël booy booy si te boobu ñu doon waxtaan keroog jox ko ke commence kii nu mu tuddee jën si jën kaay la si loolu combat la comme parce que jël carré day dugal. te mm-hmm. jël carré cinq ans la toog di daan. Mm-hmm. daanuwul ay marle ñoom seen ñëpp la daan booy bool. Mm-hmm. ay coins kon bu ko Siteu mayee sens dëgg la. mais Siteu bu ko mayee sens. moom coins dañu nul. waaw Siteu foo koy jëmalee Siteu ko. koy jox Siteu. Siteu bi mu duggee si cour de grand ba léegi bàyyi fa àll nag moom naw naa ko parce que jàmbaar la parce que booy la. jomam ak ngorom moo ko indi fii mu yor mais bu doon ñii ñu dañ ko seetaan kon du egsi. yaa ngi dégg mais cour de grand kan la fa daal. daanu ko kenn. Hmm. ku dul sos daanu la te sos bi bu daan ak sos yore est-ce que sos yi bakk na. d'accord hmm. lan ngay tàggatoo. waaw di sant yàlla rek di këram sama mbokk mi nga xamante ne yow mënuma laa fay. yow hmm. yow loo nga ñaan dama la kaa a may. dem na ba nga xamante ni yow sama liggéey moytuma sax may génn di def sorti mais yow dañoo bokk suñ baabakar te mënuñu kaa ah, mais gis nga li li naan li buté bi def rek la saan bi xeeñ hmm. bi ñuy tase fii gëmuñu xamuñu woon ne ñoo bokk suñ baabakar mais tey jii xoolal bi ñu tasee fii ñuy liggéeyee hmm. ku ne xam ne ne ñoo bokk suñ baabakar te ñu bëri sax dañoo amal mais lees lan nga hmm. waaw parce que doomu aadama dañ kaa war laaj lan nga mais doomu aadama warul doxe lan la parce que yow moomoo ko danga saa di si parkeeru Mhm. te mënoo saa barkeelu lu nit barkeeluwul kon tey sa rek. Mhm. waaw diine tarixa tey sa mhm. loo sa mën a yanu yanu ko waaye du lu ñuy wone. waaw ndax fépp laay laal. waaw ndax dama man bu ma juddoo sama maam moom mbaaru sëñ Saliou bay si bay sa marché bees ñu ngi koy doon góorgóorlu ba ñu jox leen ko ñuy doon ay maam ak dugg yi ñu nekkoon foofu gérer ko murit kay kay kay jiite bu ñëwee suñu ko suñu kër lay fanaan mook sama maama daan tëdd hmm. kon man boo ma génnee si murit dara du fa des hmm. mais nit tarixa moo ñu mag hmm. nit da ngay judd rek doon di ngay doon nan la sa papa di doonee ude nga judd doon tëggkat sabar danga koy jaaxal man sama papa moo nekk tijaan ma dippee ma alaaji maalik su may wow ak su may tooy lépp alaaji maalik laay tudd dëgg neexul